am euh, balaa may ñëw si si Mbissane euh, acte bi Sonko def c'est pour moytu euh, wàllu corruption parce que boo lekkoon ci biir peut-être nga am looy seet mais sànq da nga wax aussi bi ngay wax l'exemple de Farba Senghor ak chauffeur bi wàllu reddition des comptes am na ñu fi yëkkati ay kàddu di wax ne dañuy soutenir benn loi d'amnistie pour xalifa ak Karim kon boobu selon logique bi nga demee ak argument yi nga yëkkati doo ci d'accord kon xalifa ak hmm. Karim mën na nekk. ah bon mën na nekk parce que seen pen tëdd nañ ko. Mhm. bokkul kii kii ñamagul sax eeru eeru mbedd mi ñu tëj ko sax ci quatre quatre quatre quatre coin mhm. mais ñee dañ leen a téye fit naan leen ñu nangu. Mhm. te la nga xamante ni nangu nañ ñu tëral leen ko mais dañoo taxaw lay euh, euh, lay la rek boo xamante ni. kenn euh, jiit la rek dañoo togg kenn nanguwut a féete fett ga kan moo wax ni xalifa moo def kan moo wax ni Karim moo def ki def atte ko selon li yoon atte Karim lu tax ñu génne ko guddi dagg dagg connexion yépp kenn mënut a connecté ñu dugal ko ci avion defaral ko passeport diplomate yóbbu ko sànni ko fële. am ku ko ñëw jëlsi waxuma jëlsi gi sax jëlsi ngi sax moom beneen affaire la. Mm-hmm. jarutu nee ko rek ñu jël ko seppi ko sax jëf jooju dafa ñaaw et pourtant bàyyi Karim bu toppoon ci ko ko def ci huit milliards yi mu doon wax naan bàyyi Karim a ko may te bàyyu Karim taxaw fenn waxul benn dëgg Taïwan kon musiba am mais yi yi ngay comparer bokkul gis nga kii di rëy làmmiñ nii bis bu bis bu ñu demee ba yàlla dogal li mu dogal ba mu fanaan nuñ koy tuddee ci rëbës wala mu fanaan Kédougou dana tal leneen lu dul nekk di wax. mais tukk tukk yooyu imam est-ce que du li nga xam ne aussi moom mooy gën a taral euh, li nga xam ne mooy position pouvoir bi xam nga nee nañu mënuñu am troisième mandat mais loolu noonu bu leen tiitalee est-ce que. parce que parce que demande sociale la. mon frère mais ñoo féetoo ñoo féetoo pouvoir demande sociale nañu féetoo pouvoir dañu fiy jógee. Mhm. demande social la du ñun askan wi moo soxla jëlaat alalam. mais loolu justice moo ko war a liggéey mais jëlaat alalam ay ma ni soo ma dégloo rek nañ jéem jiboo ci kàddu jëlaat alalam wul ne dañ leen di téye tëj leen ñuy ñuy sonn wala ñuy souffrir mhm. mais ku ci nangu li nga luubal ñu teg ko ci yoon bu fekkee ni ñoom luubaluñ mais jarul baw jarul yuuxu mhm. luubaloo defoo dara set nga ni neige wala ni chemise bi ma sol mhm. mais bul yuuxu Ousmane Sonko mu naan wuub sàcc wuub sàcc rek nga jóg ne dañ ko war a rey rebelle la nangam nangam dugg na fi mais yow looy daw bay daanu. imaam nañu lu mu wax. mais Ousmane Sonko def na déclaration. président Sonko boo ko bëggee <laughs> noonu. président Sonko def na déclaration candidature am. pour deux mille vingt quatre. Mhm. en marge quand même Yewwi Askan bi aussi. Mhm. mais. yow taxawu Sénégal nga bokk maanaam ci camp xalifa Sall nga bokk mais constat bi mooy l'arène politique actuellement kenn moo koy rythmer mooy Ousmane Sonko fu mu toll nii défendre nga ko ba sa yaram tàngee exactement mais yéen ana ngeen exactement waaw mais mais mooy li nga wax ana ngeen mooy li nga wax xam nga xam nga euh, ñun dañ ñu tënk bu demee dañ ñu tënk ci ne mënu leen a nekk candidat fi ñuy waxee ni position bi ñuy waxee ni mooy position ku mënagul a nekk candidat xalifa Sall. waaw amee loolu yaa ko wax. Barthélemy comme dauphin. yaa ko wax. Barthélemy tey damay wax fii ngeen dégg. mu Barth nekkoon candidat tey. xoolal ma tekki cravate yi sol t-shirt sol short xeex pour mu jël présidence. Barthélemy Toye Dias ak candidature bu Ousmane Sonko. ma ni Barthélemy Toye Dias. Mhm. damay dangay déglu bu baax li may wax bu nekkoon candidat. bu pikiiroo mën naan fa confirmer. mais imaam li nga wax ni am na lu muy nuru de. non non non dafa ndànk nuruwul dara dama wax sama position ku nekk am na ci droit. xam nga bëgguma dugg ci détail yu keneen ak keneen. mais fu mu toll nii. waaw nee nga xale ko li muy tooy jaas laa wax. Mhm. Ousmane Sonko mu ngi may dégg xam na ma sama digganteeg moom. xam na sama digganteeg Bart. Mhm. Barthélemy Toye Dias. Mhm. dafa am lu ñu lié ma ak moom pacte la. boo xamante ni daf ko signé ma signé ko li fee teggiwul wala mu gome signature am. sama signature fa lay des. est dama ko signal ne ko. danaa la bunge insha allahu taala. supporté la ànd ak yow booy dem ma jiitu. ba nga am deuxième mandat. ci commune maire moo sacré ma jóge fa ne ko danaa la bunge supporté la ba nga jël mairie de dakaar mu jël ko moo koy bunge di ko supporté ba muy doon insha allahu taala. Euh, euh, ni ñu koy tuddee assemblée nationale. député non noon pas député député gi jàll na ba mu doon député merci. parce que dañ ko fi dafa nekkoon député ñu jële ko fa. ma koy continuer di ko xeexal jamono ji ñu toll ci lu ma mën ba ëllëg yàlla def ko muy président assemblée nationale. ma eggale ma eggale. mu jógee président mu mu nekk ci présidence gi. mille 2024 ñëw mu ne woon candidat la. ma xeexal ko ba mu dem pale waaye dafa taxaw nag ne ma imam mhm. man duma candidat. du ma léegi du candidat pacte ba jeex na mhm. alal xurur maa qaal góor bu waxee moomatul boppam al xurru xurrun maa lam yatakallam léegi nag baatu du candidat lii nga war a xool man kenn du ma xool loo fu may dem mais tenue de sport bi nga doon sol yow taxawu Sénégal nga bokk taxawu Sénégal ku ko jiite Khalifa Sall man bokku ma taxawu Sénégal encore une fois ok merci foofu laa dama doon bëgg ñëw foofu bëgguma ci woon ñëw sax ok eh, c'est quoi taxawu Sénégal. taxawu Sénégal mooy kuréel boobu Khalifa Sall jiite. taxawu Sénégal man personnellement soo ma laajee ma ne la bokkuma ci parce que aw ma ci carte de membre. ku ci am carte de membre dañ ma ko génne. sa taxawaay lan la kon imam sama taxawaay citoyen engagé jëme ko nag ci gannaaw Barthélemy Toye Dias. Mm-hmm. kese waaw. keneen ku mënti doon boo nekkee ci tolof tolof ñu lay teg loo àttanul mm-hmm. danaa xeex ba desal ca sama saliiru gémmiñ mm-hmm. xeex naa ko ak président Khalifa Ababacar Sall te ñi fiy nekk nii di wax ak di dugg ak génn defuñu ci lu tonn li ma def ku ci dul Barthélémy Dias parce que moom dong la ñuy fëgg biroom naan ko génneel nangam génneel nangam muy génne sans bégayer wala mu am arrière pensée xañ na koppar yooyu Abdou Khadre man awma ko waaye man maa jël sama paasu màkka dagg ko dem ba arafaat alxajju arafa ma déeyoog yàlla ne ko xalifa na génn ci kaso bi loolu kan moo ma ca fekk personne ba ma koy def tàgguwuma kenn parce que dama xam ni dañ ko tooñ ma xeexle ko ci tooñ googu man nag du ma militant wax naa ko Bart Bart boo la ko gën a xam ah. du ma militant wu taxaw Dakar nii taxawu Sénégal man awma carte de membre te taxawu structuré wuñ man li li daloon Idriss Seck laay bañ mu dal leen dañu jël réew mi réew mi suba ma juumul buñ ko amee Macky Sall moo leen jox récépissé kële moo leen daan abal récépissé nu ñu koy tuddee tii damay fàtte nu mu tudd gaañu ne yàlla na ko yàlla yërëm euh, ngóor si bu ngeen gëstuwaatee da ngeen xam ni ma leen wax mu ngi dëkk Pikine xaw ma géejewaay damay euh, euh, sànqare moo tax may fàtte tur yi mhm. politicien la woon wax nga dëgg. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni. mu ci biir man du ma militant woon ñiy wax. ak di commenter di dugg man bokkuma ci benn parti. mais euh, man citoyen engagé la. Bart pacte bi ñu signé mooy gor nga may gor ànd gor lañuy ànd. Mm-hmm. ànd gor ak moroomu nawleem. Mm-hmm. boo jiitoo ma leroog yow. waaye jiital ma topp naa jiitu ma topp sama gannaaw. mais Barthélemy na cëru kilifa gi bu ñëwee. Mhm. danaa la ko jox ba mu mat sëkk. Barthélemy lu tax mu ne du doon candidat peut-être. Ah, dafay xeex pour xalifa euh, Sall am amnistie. Ah, bu amee amnistie kooku nag xañ na. Euh, peut-être mun nga koo jàppale ci xeex boobu. Barthélemy Khalifa Sall am amnistie aussi. déedéet am na xeex yoo xamante ni moom. Euh, moom moom sama xeexu personnel la man sama conviction lay doon ni ma gëmee ni Barth mën na lijjanti Dakar. Mhm. ni ma gëmee ni Barth mën na ordonner. assemblée nationale. noonu naa gëmee ni président Ousmane Sonko moom a doy ci njiitu réew. ok kon Ousmane Sonko ngay jàppale. mais man Ousmane nëbbuwuma naa ko. ku ma ci saaga tamit da nga ma tooñ. ku ma ci xañ sama cër. Mhm. côté bu nekk ah maa ngi ciy yëg maa ngi ciy souffert. Mhm. côté nekk. mais man sama position. bu yàlla wàccoon sol Sabador du changé. Mhm. te Barth xam na ma ci. yow Khalifa Sall amoo leen benn problème. non non problème aucun problème. ay militant sama sama sama frère la sama grand frère la euh, jeex na. relation yi entre Bakk et xalifa Sall. non kooku moom seen diggante moom ma nga fa mu nekkoon ña ngay doxal lañuy doxal. mais li ma bëgg a bàyyiloo xel nit ñi ne man man du ma militant wu taxawu dakaar sama kër amul carte taxawu dakaar waaye nag citoyen la boo xamante ni dama ci combat imam sa posture bi aussi tamit day am lu mu yee ci suñu xel parce que ñun tamit ci réew mi lañ dëkk lu muy yee maanaam <laughs> pour tànn mu may dugal <laughs> non dugalu ma damay laaj lu muy bëri yëg lu bëri dégg nañ ko fi peut-être ñun tamit yenn saa ñu fréquenté homme politique ci suñu liggéey kii demee noonu man moom tabaaraka dégg nañu ñu ne waaw Khalifa seen camp surtout seen Khalifa Sall d'accordul woon pour Barthélémy Diaz wutu Soham Wardini ca ville de Dakar. waaw xam nga loolu. loolu man. loolu bëgg nañu aussi nga leer parce que li nga wax ni aussi daa am lu mu lu mu. Euh, gis nga bu ñu ma woon jamono jooju comme que passé na. Mhm. dama lay ñaan rek misaal. Mhm. nañu tourner page boobu parce que xam nga li nga am solo mooy nañ jëm ci kanam. Mhm. non loolu lu ma lu tax ma indi ko maanaam day témoigner ne peut-être euh, ci seen biir yow da nga bëgg am ay xaajaloo quand même da nga bëgg a jàpp ne man sama position ma nga commencé foofa yow yow loolu nga ma bëgg a ah, jox sama xel bu ma neexee waaw déedéet bu ma jox loolu ci sama xel parce que euh, mënoo nettali sa gént <laughs> nettali sa gént moroom xam nga nañu yem ci rek ni mhm. bu Barth doon candidat moom laay jàppale beneen ba ca des mhm. sama xeex moo doon wallahi wa bi fi quran sama xeex moo doon mu am deuxième mandat yàlla sagal na ma ci sama xeex moo doon tey mu dem ba gagné mairie de Dakar yàlla suturaal na ci sama xeex mooy mu dem ba mbubbu député ñu delloowaat ko ko yàlla suturaan na ma ci dama campagne ba màkkatal mu karam ren vidéo yaa ngi fii dugg leen ci réseaux sociaux yi dugg leen ci d'accord dañuy dañuy. ñëwaat man man man eh, te et puis nag eh, ku nekk bëgg na ñu yëg la ba mu des sàcc. Mhm. maanaam. mbisaan yaa ngi dégg. Mhm. nit ku nekk bëgg na ñu la ba mu des sàcc. leera la maanaam li ma la wax ba mu des sàcc. Mhm. gis nga nit nit. ku nitee da nga yëg say nit. danga leen di considérer da nga leen di jàpp Barth dafa yëg nitam jàpp ay nitam mooy ci loolu waxu wolof la de. ah teg teg ko wolof nag léegi la ca des ah, moom. misaal ah, ah, <laughs> alors imam dañuy dañuy dañuy. jox naa la ko noo ko noo ko tekkee rek noonu la waaye daal. Mhm. dama lay bëgg a wax ni daal moom bu doon candidat daal Abdou Khadre. Mhm. ma taxaw xaar ci suma tànk tubéy. tey buñ ci xaaree suñu tànk tubéy am nañ yaakaar ci yàlla ne dana egg palais. Mhm. parce que li may dégg nii. ah, ah njott nañ bu baax ne xalifa Sall bu amul am amnistie moom parti mooy doon candidat. waaw ah, xam nga ah non noonu la non ma wax na ko moom lu mu la wax loolu lay def man li ma wax gëm naa ni loolu la moom nee na du candidat mais xalifa Sall mooy kàndidaam bu fekkee ni nekk na candidat. bu fekkee ne bu fekkee ne nekk na candidat loolu kay leer na. ñun mhm. ñëpp ko dégg. au cas où nekkul candidat Sonko mooy candidat. mais man ma ni ko maa ngi la fay jiitu xaar la. Mhm. d' accord imam ci sonk moom misaal nga wax ji. waaw maa ngi lay jiitu te Sonko xaar la. peut être bu ko ci militant yi bàyyee aussi. kan militant yi. waa taxawu Sénégal moom taxawu Sénégal la bokk waa taxawu Sénégal tamit. kanam mooy taxawu Sénégal xam nga dama la wax bëgg nañu am candidat 2024. pour waxal la taxawu Sénégal. Mhm. nañ ko osé ñu wax ko. waaw ñaar la. Mhm. président Khalifa la Barth la. bu ñu fa jógee taxawu amatul toog Sénégal la ñuy wax. taxawu Sénégal amul candidat 2019 amul candidat 2024 kon kay existé tout mais déglu ma rek moo xam la président Khalifa Ababacar ak Barthélemy Diaz mhm. ñooy taxawu Sénégal ñooy taxawu Dakar mhm. bu ñu fa jógee taxaw amatul toog nag xanaa mbisaan dégg nga wolof dégg <laughs> d'accord imam dañuy dañuy dañuy progressé génn ci euh, question yi ñuy posé mu ngi bawoo ci bi ñu duggee ci discours Sonko bi mais damay dañuy